lu ne rek da koy wan doomu moo tax ngi bëgg a effacé waaye nag mënuñu effacé yoon ci xolu nit ñi mhm. mën ci ci ci bëti nit ñi ci noppi nit ñi waaye mënuñ ko effacé ci xol te mënuñ ko effacé ci bëti nit ñi ak ci ci ci noppi nit ñi kon nag na ngeen góorgóorlu ci lii bëgg yonent bi jaamu yàlla bu kare la ndax yonent bi ma waxoon ne na ngeen bëggloo seen doom yi seen yonant mm-hmm. te ngeen jàngaloo leen alquran kon lii ñuy def nii di ko royee ci Cheikh Baye Niass yiw bu rëy la boo xamee war yem ci ñun ñun ñii tey dañ ko war a jàllale suñu njaboot bëggloo leen yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ak di leen jàngaloo alquran yiw yëpp mu ngi ci loolu alhamdulilah ñun de ñu ngi ci yàlla ñu ci yàlla saxal. waxuma la nit ñëpp àgg nañ ci réer mën naa ne sax du bon ndax ñi bon sax bëgg nañu la. waaye àgg nañ ci réer boo xamante ne ndeysaan keroog benn vidéo maa ngi ko doon partagé mu ci sama téléphone xamaa dafa sori benn conférence bu mag. waa ji bi mu conférence ba pare am ku ko bind benn ko laaj ne ko ndax yelloo nañu julli ci ginnaaw imaamu Tijaan biir Maroc ndax yelloo na ñu julli ci ginnaaw imaam boo xam ne Tijaan kon xam nga ne kooku information bi mu am ci lii Tijaan yet ñaaw na parce que jullit la moom day gàtt kon bu demee fañ ko jàngalee islam ak fañ ko wanee tarika Tijaan ba mu laaj ci diggu conférence daf ne kon yelloo nañu julli ci ginnaaw imam boo xamante ne tijaan la kooku lañ ko wax ci tijaan yi du baaxu moo tax damay fàttali rek li imam Hassan waxoon ne euh, na jotaay yu bëri mu ne na jotaay yu bëri ndax ñu tekki tuuma mu ne ba tey ñu ngi tuumaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey ñu ngi tuumaal Cheikh Tidiane ba tey ñu ngi tuumaal Cheikh tuuba boobu nag takkulee waaye yow bi nga xamante ne bëggoo dugg ci tuuma gi waxtu jot del jéem a jege jege lu soppe bi te ut a xam ci moom dara loolu lay muccloo ci tuuma yi ndax ndax xaadisatul euh, xaadisul TFT ba léegi tey maa ngi koy internet waaye ni ma ko liiree histoire boobu sifié ko bi moo tax moytu ci internet mm-hmm. bëri na francisant yi ñuy jàngal islam sifié leen koy jàngal moo tax buñ demee ba war a jox gëdd islam mu des gis ngeen député boobu bu yàggul bi mu naan yonent bi gënul ndeyam gënul baayam parce que moom ndeysaan nañuy jàngee islam ak nañuy jàngee histoire yonent ba ci li ko wër ci ay jabaram ay saxaaba yenn yi leen di nettali du islam ay jullit binduñ ko du loo leen gis ci internet bi rek dëgg la leen di recherche mais am na yu bëri yoo xamante ne tey juif yi ñoo koy bind am na film yu bëri yoo xam mu ci internet yi film islam film yonent bi histoire yonent bi yu bëri juif yee ko fabriqué waat am yu ñu ci waay am ay dub yu ñu def li la koy moytuloo yëpp mooy fexe jege Cheikh Mahi Niass jàngal la kan mooy yonent yàlla. ndax nit ki bu lay jàngal boppam. dana leer lool. sama benn xarit mën naa ne daawaati jéeg lañ discuter discussion boobu ñu discuter ci la wàññi ci man sax dara ba ndax dañu toog muy waxtaan benn jour fii si kër jógee France ñuy waxtaan benn jour ba ne ma sax. lu bëri lu ñuy wax ci ay racisme loolu sax mu ngi ci biir islam te yonent bi fekkee na ko te waxu si dara wax ma xam ne kii information bi mu yaakaar ne xam ne diine xamul diine ndax mu ngi doon wax banaan bilaal lu tax amul jabar ci biir jullit yi ba yonent bi génn àdduna te yonent bi mu seetaan jigéenu jullit yi bëgguñ bilaal ndax nit ku ñuul la yonent bi seetaan bilaal mënut a am jabar seen biir c'est parce que loolu racisme la te yonent bi daf ko porté ba ñu génne am te jullit la dégg nga xam nga waxtu mën naa ne moom muur nañ ko lëndëm lay sant moo tax islam ci jullit yi nga koy jàng te ci jullit yépp sax ngay jàngale islam ngay jàngale islam ndax ci Makka rek maa ngi dégg ci ay borom xam-xam mu ngi ci internet bi de. Mhm. ñu ne sallallahu alayhi wa sallam wa sax loolu waru ko wax. waaw ay borom xam-xam lañ ne te mbir du ay njàngum arab ak làkkum arab damaa bu ngeen xam ne dox jëm ci yàlla du ay làkkum arab du ay bokki kaamil du ay def ay fatwa. gis nga dox jëm ci yàlla ci yëg yi rek laa ne mhm. ci ay yëg yi rek laa ne ajul ci lenn waaw ba yàlla doon wax ne yonent bi saxaabaat ñi jege mu ne leen su ma am na ngeen wari ku ñuy wax mooy seen xarit yi mhm. ngeen ñaan ko mu ñaan te kooku mu su te ñëw ci yonent bi mhm. waaye dafa amoon ngant bu mag bu mag ngant na moo tax bi yonent bi di seddale kenn ëppale loolu rek war nañoo xam ne mëdët am war nañoo xam ne sori te jege loolu mëdët a koy def jege te sori tamit ñàkk mëdët moo koy def moo tax nag kon nañu góorgóorlu ngeen di jëlee ay information ci bàyyi ñu wér ngeen jëlee ay information ci ñu wér fi ngeen jëlee si ay information ci yonent bi mu wér ba ci tey am na ay tijaan yu bëri nee nañ ñu ngi ci biir faydu bi waaye wallaahi bëgguñu bàyyi mhm. dañoo dem ba xam ne tàpp nañ leen gauche tàpp leen droite lu mu ciy génn ñu daw làqu ci baay pour rek jot xam-xam maarifatu billaahi mais biñ ko jotee ba pare dañoo taxawaat fële mhm. te li ma leen wax du bëri xam na mhm. dañoo xam ne maarifatu billaah bi mënuñ ko am furut ci bàyyi. te lu ñu bëri bëri xam-xam luñ doon doon tijaan fu daje benn ndaw Cheikh Ibrahima Niass mu wàññee. nan leen comme li ma ñu ne nag kon mënuñ cee génn te bu ñu bëggee doon sëriñ wala kilifa faw ñu ñëw tarbiya doog a mën a doon sëriñ doon kilifa looloo leen indi ci bàyyi. waaye wallaahi bëggul bàyyi. soo déggee seen waxtaan sax day xam ne dañu bëgg a def bàyyi xale ci biir tarika. looloo looloo soo Cheikh Mahi si wax na ko. wallaahi. wax mhm. naa leen ko démb. mu ne nit ñu muus nañ ak nañ ci mag. foo xamante ne bu nit tàmbalee wax juróomi minute lu xam fii ca. Mhm. ne gars dañ laa bàyyi ci lii rek. loolu bëri na ci fay bi léegi. waaw mu leer laa rek. dëgg dañuy ñëw yaakaar ne ñun taalibe bàyyi dañuy doyalal Cheikh Tidiane. Mhm. wala dañoo faale ko Cheikh Tidiane ba ñuy ñëw ba ñoo imposé waat Cheikh Tidiane. te ñoom la ñu xas a am ci Cheikh Tidiane bay tëb sax ci bàyyi lañ ko amee. Mhm. luñ yàgg yàgg ci xarit la. te ñun ñëpp xamee nañ leen. dëgg la. ñun ñun xamee nañ leen bu baax. moo tax yéen laay wax ñi amagul information ci fayda bi ngeen tey. Mhm. sinon da ngeen yàq ba pare. dinañ leen yàq ba pare. ngeen doog a xam ne yàq nañ leen. Mhm. kenn du bàyyi. ñas ñas. ñun lii buñ ko mënee ci yoonam bi baa ñu mën ko ci Cheikh Tidiane. yàlla Cheikh Ibrahima képp ku ko delloo li mu moom ci yow dafa rëcc. Mhm. bàyyi ko xale. ci àdduna bi du xale ci islam. Mhm. du xale ci tariqa bi du xale dégg ci islam suuf. Mhm. du ku ñuy tollaleen ci islam. waaye du ku ñuy tollaleen ci tariqa bi. du ku ñuy tollaleen ñu bëri di toog di jàngale bàyyi mu kaddam mm. la ci tariqa ba bés benn mu kaddam bàyyi taxaw na ne bàyyi sax mënu ko dàq oh. parce que moom dafa jàpp ne bàyyi mu kaddam ci tariqa ñun sunu genre yi mënuñ ñoo yàq te duñu suñu kiiraay man njàngum arab ak làkk yi yu bëri ak mën a woy aarut ak bayaat man yooyu du tus si man lijjantiwuma ko sax mm. lijjantiwuma man yooyu du sama kiiraay yow yéen la seen kiiraay moo tax moytu leen dox gi ngeen dox jëm ci bàyyi bu am benn complexe ci jëm gi ngeen jëm ci Cheikh Ibrahima kuñ leen wax ku dul bàyyi rek xale la kuñ leen wax ku dul bàyyi rek xale la wallaahi Cheikh Tidiane lii mu am ci àdduna bi tey bàyyi la bàyyi la mm-hmm. te loolu képp ku ko nangulul Cheikh Ibrahima Niass sa tëbb sax dina bokk ci sa yàlla musal. bu fekkee ne nee nañ tariqa tijaan yaa ko ba ñëpp tijaan lañ. bu ñuy wut ci baaj. lan la ñuy wut ci baaj. ñoom ay tijaan lañ woon ba doon mag. lu ñuy wut ci baaj. luñ toog fañ toog. nañ toog fañ toog ba daje ñun rek. ma ne leen lenn pour ñu tëj dama leen wax ne jaamu yi mbindeef boo xamante ne ñëw na ci kaw suuf si. doyloo sa xel meeg sax xol ak say capacité say qualité ba joxoo yonentu Muhammad loxo ñi jox yonentu bi dana leen dana la dana la gënd bi mm-hmm. te képp ku doyloo yonentu Muhammad ci sa islam boobu naw ci sa bopp ak sa njàng ba joxoo loxo Cheikhu Tidiane ñu jox loxo Cheikh Tidiane dañu lañ gën demee. merci laay wax tariqa Tidiane bi àdduna bi ba mu daj ku joxul bàyyi loxo. bés boo dajee ci biir tariqa bi ku jox bàyyi loxo. da xam ne bàyyi du moromu kenn ci tariqa. wallaahi. yaboo na ngeen góorgóorlu. waaw yaboo ngeen góorgóorlu nekk fii di rey nit ñeeg ay. mën naa woy mën na loolu làkku arab kese la. loolu tax ak diine ji dañ. mën naa woy loolu làkkum arab la hmm. yéefar yëpp mën nañu woy arab yëpp mën nañu woy catholique yi sax dañuy woy ci arab ñun loolu ñun loolu taxu ñoo jóg hmm. yooyu taxu ñoo jóg de hmm. li ñu tax a jóg xam ngeen ko te bi ngeen di jógee seen kër xam ngeen ko te jox ngeen bu leen ko kenn yàqal mbir bi Cheikh Ibrahima kese du keneen du keneen bàyyi kese la du keneen dañ dul ay gor nag te mu ñuy jaay kóllëre bëgg Cheikh Tidiane yi bàyyi gën a bëgg Cheikh Tidiane faw mhm. te fi mu fekk Cheikh Tidiane kenn fekk ko fa mu teg Cheikh Tidiane yi kenn mënatu ko fa teg mhm. alhamdulilah waaye fi mu fekk yonentu Muhammad kenn du ko ko fa fekk ba pencam yàlla fa mu teg yonentu yàlla Muhammad kenn du ko fa teg wax ji may wax nag mhm. ñi ci biti moomuñ ko boro xam-xam ak ñi nekk ci biir faydu bi di hmm. yaakaar ne taalibe yu bàyyi yi dañoo respecté wu Cheikh Tidiane wala xamu yonent Yàlla Muhammad ñoom laay waxal. Hmm. ñoom laay waxal te ñoom xam nañ ne ñoom laay waxal. Hmm. te ñi may waxal ñi may dégg xam nañ ñi may waxal. te bu tontu leen jotee dinaa leen tontu direct. waaw. yokk leen seen mahabatu ci Cheikh Ibrahim. di ngeen am bàyyi leen ko yokk. kenn yokk leen kenn joxu leen ko. Mm-hmm. waaw kenn joxu leen ko. Mm-hmm. buñ ñu buñ ñu amee ci kenn. Mm-hmm. ñun suñ tijaanitu gii bàyyee ñu ko def kenn defuñu ko. te kenn mënuñoo dakk. benn mbindeef mënuñoo dakk. kenn mënuñoo dakk. fépp ci ron Cheikh Ibrahima Niass. benn mbindeef mënut ci ñun tous. ak a doon ak foo mën a jógee. loo mën a xam. ak ku la a jur. <laughs> lu wér laa leen wax. dëgg la Baye Niass. ngeen doyloo ko te li ko doyal na ko def. lim ki ñi ma doyloo woon na leen doy. li ko doyal na leen doy. te li may wax xam naa ko te ragaluma ko te bés bu wax jotee dinaa joxoon nit ba mu xam ne moom laay wax. dëgg la baay asalaamaaleykum wa rahmatulah. yàlla na yàlla defal tawfiq. yàlla na yàlla eggal ci maqaam. ñun ci bàyyi rek lañ jëm jëmuñ ci kenn. ñun buñ tawee ci bàyyi rek doy na. lu bàyyi amul nee na ñun soxla ko. te lu bàyyi amul sax amul. nañu góorgóorlu te ngeen bëgg Cheikh Ibrahima Niass di yokk seen mbëggeel ci baay di yokkee seen mbëggeel ci baay mooy waxtu woo leen toog rek ut leen a xam ci baay dara ut leen a dégg ci Cheikh Ibrahima Niass dara ut leen euh, ci baay dara bu boobaa seen mbëggeel dana yokk ci baay waxtu wu jot ca baaxir nag ak ci baatin Cheikh Hassane dem wax naa leen ko démb bu ko amut te mu ñëwee ci na fa oote Cheikh Haadi bi muy dund bu ko mën ci tariqa tijaan amut ci naaj waaye bi mu ñëwee ci bàyyi dafa oote mhm. misire Abdoulaye Diédhiou ba ñoom Abdoulaye Diédhiou ba sax xamuloo sax Cheikh Tidiane Fall ci beneen tariqa lañ nekkoon. li ñu am ci yàlla yëpp ci feneen lañ ko am. Hmm. biñ ñëwee ci bàyyi lañ doog a xam kan mooy Cheikh Cheikh Tidiane. Hmm. te biñ ñëwee ci bàyyi lañ doog hmm. yi Cissé. ku ko gën a jege te bi mu ñëwee ci bàyyi ba xam li war a xam dafa oote. bàyyi yónni wul ay taalibe ne oote na déedéet. gaa yi ñoo ñëw ba xam ne jëriñu leen ci yonent bi jëriñu leen ci Cheikh yi ñu wëlbatiku ne ku dul kii mënu laa jëriñ ci yonent bi mënu laa jëriñ ci Cheikh Tidiane mhm. te gis ñu doon jullit fekk ñu ñu doon Tidiane waaye biñ daje moom li ñu yëg ci li ñu ci yonent bi amut moo tax ñu oo yi ci bunt bi mais nekkul ne bàyyi moo oote ci bunt bi mhm. maa bëgg loolu ngeen bàyyi ci mhm. képp kuy naa fekk naa fekk lu nekk ci biir bàyyi di amee de nit ñeeg ay nañ jox Cheikh Tidiane cëram kan moo fi joxul Cheikh Tidiane cëram. kan moo fi jotul kan moo fi joxul jotul cër surtout Cheikh Tidiane cër cër. Hmm. ana ban muqaddam bàyyee ko joxul. Hmm. ah. Hmm. nañ ko waxee rek. Ah? dëgg la. te ñi may wax xam ngeen ne te bés bu tontu jotee dinaa leen. di daay xam naa leen xam nañ te li may wax xam nañ te ñi koy dégg nañ leen nañ leen yóbbante wax ci danaa mos a daje ak ñoom. أنا Tanrı'ya ile não Tanrı'ya ile tevfik eylesin. Bayrız bu işetsiniz. Bayrız bu işetsiniz. Hiç tarihte bir bayrız konuşulsunuz. Dagala bay. te li ñu doy ci Cheikh Tidiane ci bàyyi lañ ko gis não ñu xam ci Cheikh Tidiane ci bàyyi isso ko jël bëgg li ñu bëgg Cheikh Tidiane ci bàyyi lañ ko bëgg li ñu bëgg yonentu yàlla Muhammad bii ci bàyyi la jóge li ñu doy ci yonent bi ci bàyyi lañ ko jëlee li ñu xam ci yonent bi ci bàyyi lañ ko jëlee damaa bëgg loolu nag muy seen mawqif ay ay yaatu yooyu ñu leen waxtu dara naan fekk la ni fàq la bu fekkee ne ne dafa am lu ñu xam ci tariqa tijaan lu ñuy def ci bàyyi bu fekkee ne nañ ay xalifa Cheikh Tidiane lañ lan la ñuy def ci bàyyi nañ toog fañ toog ba daje ndaw yi bàyyi danañ xam ndeysaan dañu xam. yes. mais xam nañ ne seen tijaan yi te mu mënut a mat doon giñ doon sax mënut a seen ijaaza yi amoon bu njëkk buñ toogoon ci biti te ci bàyyi kenn du fëgg seen kër yi laaj leen wér. wallaahi. xam nañ ne bunt bi tey Cheikh Ibrahima. alam bi nit ñi Cheikh Ibrahima lañ jublu. moo tax ñu daw dugg ci biir faydu waaye billaahi bëgguñ bàyyi. Oh. bëgguñ bàyyi te billaahi bëgguñ bàyyi man la. bu ñëwee di ñu laaj ay laajte arab ay. menawe menawe mana mën naa ci catholique yi ci arab ngeen ci Cheikh ci ngeen dox ngeen xam lu wér boo leen xamee lu wér yëpp grimace yi dañ fi ñàkk xam lu wér tax fu ne kundum rek ngeen dem fu ne kundum ngeen dem fa yi ngeen rek indi li ngeen te dafa bëri ñu ne ci faydu bi te tarbiyewuñu tarbiyewuñu de mais buruxlu lañ ba nuru nuru lu mu xaram te tarbiyewuñu hmm. moo tax buñ doxee rek nga xam ne xamul yàlla buñ doxee rek nga xam ne xamul yàlla ku hmm. xam yàlla bëgg Cheikh Ibrahim Niass wallaahi Baye euh. te ku bëgg a bàyyi mënoo bokkaale Cheikh Ibrahim lu wér laa leen wax moo tax man aw ma ay coalition aw ma dara man écrit individuel laa ah, oh. soxla ma soxla ma leen ay coalition ay partenariat ay ay yi man soxla woon ànduma kenn. man bàyyi rek laa ànd ak. ànduma kenn. tëgguma ku ne na toog sa kër ma kër kenn. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Cheikh mu ngi fi di leen waxtaanee da ngeen koy continuer suba. incha allah bëgg naa ñëpp ngeen di teewul ci zaawiya bi bés bu nekk dana am waxtaan. te li ngeen xam yëpp ngeen. xadara bii. lépp loo leen soxla ci Cheikh Ibrahima xaw ma ci keneen ñi mu ngi fi te di ngeen ko yëg. incha allah yàlla na yàlla may ci kub. yàlla ak wér. bañ mën a bañ mën a jooxee dégg nga sunu waay ci Mawlana Cheikh. amiin yaa rabbi loo leen bëgg ci faydu bi. incha allah da ngeen ko jot fii ci leer. alhamdulilah ku yàqal tuuti nag. man aw ko problème mu ma man ragaluma ku ma jox boppam. xam nga lu ma ragal ndax mun nga maa xaar. dégg nga ndax mën ngaa patience ndax am nga patience loolu rek laa ragal waaye man ragal ma ko dugg sama kër jox ma loxo ndax Cheikh Ibrahima Niass déedéet man li may tiit ci yow mooy ndax am nga patience ku amul patience gaawal romb ñun jëmul fekk ci bàyyi ngeen jëm waaw kon nag yal na yàlla defal taw fi loolu jox Cheikh Ousmane alimam euh, mu joxe ko ndax ñoo bokk li ñuy def bokk fi ñu ne bokk li ñu bëgg te fii ku fi ñëw ci xadara bi ñu jox la micro ñun yoruñu ma xadara boo xam ne ku ñëw ñu naan bul jox kii bul jox kii bu ñëw ñu jox la micro nga wax jaam yàlla yi ba ñu nañu Cheikh Ibrahima Niass dégg nga li des mooy may ñu kattanu zahir ak kattanu dégg nga baatin man liggéeyal baay waxtu bi bu jot tey ñëw leen ñuy joxe xam-xam ñëw leen déglu dégg nga ñu doyloo xadara bi dégg nga doyloo ci xam bi joxe doyloo kilifa yi nga xamante ne ñoo jiite xadara bi te ñu ci sama ndigal bu boobaa sa karima bu pare ñu bi gudd na waaye suba du doon lu gudd sëriñ bi jàngee gudd rek ki war a waxtaan waxtaan ki war a def taale def taale dee leen enregistré di ko déglu billaahi yéene yi ñee ay nit ci biti di leen déglu barke bàyyi na ñi fi nekk yemuñ leen fii mhm. man maa leen ko wax xam-xam fi nekk mhm. xam nañu yàlla ju wér te jub nañ mhm. li gën a jafe ci faydu bi mooy jub te man xam naa faydu bi de du ma ci bees du ma ci bëlë

kon góorgóorlu leen képp ku aju ci leerul xam di leen déglu borom xam-xam yi loo leen di bëgg a gàgganti ñu ngi seen kër yi ñu ngi fii jege fii ci kenn gënu ci xarit waaw loo leen soxla ci yàlla loo soxla ci téere yi mu ngi fi ku gis ne nag leneen a ngi feneen bul maslaat ñun dem fa parce ku nekk ma wax leen ne ñu téewuñ kenn. ku bëgg a dem na dem téyewuñu kenn ku bëgg a dem na dem te ku am lu mu ñuy défier ngelawaay del si ñu jox la micro. bu la neexee ci xadara bi bu la neexee ci saal bi. ngelawaay del si rek micro yaa ngi ñu dégg. salaamaaleykum. alhamdulilah. salaatu wa salaam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ñu ngi sant yàlla jul ci noonu Muhammad wa ala sallam ñaan yàlla mu yokk leer ak tegu Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane ak Mawlana Cheikh Ibrahim ñëpp ñu wax jërëjëf yéen Baye Niass. jërëjëf yéen Baye Niass. jërëjëf yéen Baye Niass. jërëjëf Baye Niass. sëriñ bi Cheikh Abdou Aziz Ndiaye di ko ziara di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér. di ñaan yàlla mbooleem ay sëñ moom yàlla ko yàlla matal. ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim ak sa Aziz bu ko ziara ziara ma bàyyi ndax xamul gisul dund bu ma Cheikh Ibrahim te moom bokkul ci ñuy bokkaale Baye Niass. yàlla na yàlla musal ñu ci bokkaale Cheikh Ibrahim. donc loolu lañ ñëwoon rek donc ziara ñu toog ci lii alhamdulilah rabbil alamin sëriñ bi wax na dëgg ñun Baye Niass danañ ñu sëkk. bu ñu nekkee tijaan Baye moo tax. su Baye nekkoon beneen tarixa beneen bu tijaan ñun li Baye nekk loolu la ñu nekk. mu doon ñu sëkk am na waa كفانا مولانا شيخ ابراهيم ما يقولنا يقول صلى الله عليه وسلم وكفاني تاع احبه لست ادري من خلاني لست اخشاك اذا عاد ان ولا جور زماني نفى مكاني في زماني وزماني في مكاني wax bi leen coupé tegal ko Mawlana Cheikh Ibrahima ñun kafaan naa Cheikh Ibrahima Niass doole ñu sëkk sëkk ñu dara ci keneen wa axiru dawaana alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf Cheikh Ousmane kontaan nañu bu baax kontaan nañu bu baax loolu la rek doy nañu waaw te képp koo xamante ne tey. Hmm. nee na daal di ci Cheikh Tidiane yi ba ñëpp lu ñu yëgul na ñëw. na ñëw rek ku nekk ci faydu bi tamit yëg ne dafay rootee ci Cheikh Tidiane yi ni mu jëlee ci bàyyi na ñëw. na ñëw bu fekkee ne ci biti nga nekk nee ci tarixa Tidiane ci biti nga nekk nga ne yaa root ci Cheikh Tidiane ñun luñ amul taalibe bàyyi na ñëw. ñun de suñu sëriñ dafa am lu clair bu wax wa maa kuntum tasmauna an akaabir aarifin aw amtaan haa huwa al-aana mawjuudun bayna bàyyi waxul sax ponkalu tarixa bi de képp kuy mës a doon wali yàlla lépp loolu mës a dégg ci moom muy wax bàyyi nee na mu ngi sama wax ñëw leen jëf loolu wax génnew ci kenn te te te te loolu fondé fay loolu mooy fondement fay lépp a ngi fi mooy képp ko ne nag mu ngi ci biir faydu bi nee na am na lu muy yëg ci Cheikh Tidiane loo xamante ne bàyyi joxu ko na ko wax ba ñëpp dégg ko ñun ñu fekk ci ko këram ñoom dañoo xamul ne Medina Baye xanaa xamul ne taalibe Baye yi Medina Baye bu ñu yëkkati woon kàddu ne tey génn na ci tarixa ci jaar sax ñun ñu génn ci tarixa ci jaar. wallaahi wallaahi. dañoo xamul ñun fi ñu toll. Medina Baye tey bu ñu demee woon dañoo ne génn nañ tey ci tarixa ci jaar billaahi ñu génn ñu ci tarixa ci jaar. loolu la ñu xam. buñ ko xam rek ñu bañ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بدا للناذرين جماله هلال ربي فيه جاء محمد وتم لنا البشرى وأما نواله